برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان هنيئا لإبراهيم جماله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ñu ngi ndokkeel suñu bopp na ñu ngi ndokkeel suñu bopp ñu ndokkeel jullit ñëpp ci àddina bi ñu ngi ndokkeel jullit ñëpp ci àddina bi ci bés yu tedd yi ci suñu bakkan ci bés yu tedd yi ci suñu bakkan ci bés yu kawe yi ci suñu xol ba si yonent yàlla Muhammad muy ba si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne lu nit am ci teraanga nga am ci teraanga moom mooy cosaan bi moom mooy cosaan bi teraanga yooyu nag yàlla moo ko ko jox yàlla moo ko jox ne ko jottalil ko samay jaam ne ko jottalil ko samay jaam jaamam. ba mu ko jottalee. ba mu ko jottalee ay jaamam. am na ay jaam yu nangu. am na ay jaam yu nangu. yal nañu ci yàlla boole. yal nañu ci yàlla boole yaara bi. am na jaam yu nangu. am na jaam yu nangu. ñun ñii ñu nangu nag. ñun ñii ñu nangu nag. am na ñu ñu ne doxal le noonu. am na ñu ñu tëralee nañu doxale leen noonu. jaamuwuñ kenn ku dul yàlla. jaamuwuñ kenn ku ma yàlla. toppuwuñ kenn lu ma yónni ci Muhammad. toppuwuñ kenn. lu mooy yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay jàngaleem yu kawe ak ay jàngaleem yu kawe jàngaleem yu kawe yooyu jàngaleem yu kawe yooyu bokk na ci bokk na ci nit bu amee gan na teral ganam nit bu amee gan na teral ganam ñooñu te fan yii ñu ñëw si te fan yii ñu jëm si fan yi gan rek la fan yi gan rek la gan nag gan nag fa muy jëm fa muy jëm war na faa fekk loo xam ne war na faa fekk loo xam ne dal na xelam dal na xelam. fees na ay bëtam. fees na ay bëtam. loolu. loolu. waa Medina bu ne. waa Medina bu ne. sa gan. sa gan moo ñëw ci yow. moo ñëw ci yow. ñëwuñ ci kii ñëwuñ ci kii. ñëwuñ ci kii ñëw ñëw uy si oote Medina. dañoo ñëw uy si oote Medina. boo xam ne. nga xam ne. boo xam ne. boo xam ne. ay nit ñu kawe ñu sell. ay nit ñu kawe ñu sell. ñoo ko méngoo woon. ñoo ko méngoo woon. di ko yar ci xoli nit ñi. di ko yar ci xoli nit ñi. ba yàlla def mu agsi fii mu agsi ba yàlla def mu agsi fii mu agsi tey ci ñun. bu ñu amul seen i kattan. bu ñu amul seen i kattan. bu ñu amul seen dogu. bu ñu amul seen dogu. ñun ñëpp gis nañ lañ daan def. ñun ñëpp gis nañ la ñu daan def. gis nañ lañ daan wax. gis nañu it. nañu daan wax. gis nañu itam nañ daan jëflanteeg Sénégal. gis nañu itam nañ daan jëflanteeg Sénégal. ne seeni gan. seeni gan. seeni gan. gan yooyu nag. gan yooyu nag. ñoo nekk fii. ñoo nekk fii. ñëw fii ren. ñëw fii ren. ñëw ñëw boo xam ne. ñëw ñëw boo xam ne. fekk àddina bi am lu fi soppeeku. fekk àddina bi. am lu fi soppeeku. lu fi soppeeku mooy lan. lu fi soppeeku mooy lan. mooy gis nañ feebar boo xam ne. mooy gis nañ feebar boo xam ne. mosuñ koo gis. mosuñ koo gis. ñu ngi koy door a gis. ñu ngi koy door a gis. feebar boobu bu ñëwee. feebar boobu bu ñëwee. yàlla bàyyiwuñu. yàlla boole nañu ay docteur. boole nañu ay docteur. ay borom xam-xam. ay borom xam-xam. boo xam ne lépp lu ñu mën. boo xam ne lépp lu ñu mën. ñu ngi koy def. ñu ngi koy def. yàlla musal ñu ci feebar boobu. ngir yàlla ci feebar boobu. te ñooñu. te ñooñu. Uh, nit ñooñu. nit ñooñu. ñi ay nit lañ comme ñun. ay nit lañu. comme ñun. waaye yàlla defal na leen. waaye yàlla defal na leen. teraanga boo xam ne. teraanga boo xam ne. mooy bu mbir jotee. mooy bu mbir jotee. jaaxal ñëpp. jaaxal ñëpp. yéen jóg leen. yéen jóg leen. yéen a amee bu boobaa. yéen a amee bu boobaa. li nga xam ne. li nga xam ne. yéen a ko war a wax ak nit ñi. yéen a ko war a wax ak nit ñi. yéen a ko war a jottali nit ñi. yéen a ko war a jottali nit ñi. te boobaa seen wax. su boobaa seen wax ak seen ndigle ak seen ndigle topp rek la laaj topp rek la laaj ndax dañuy dimbalanteeg ñu ni ñoom ñu ni tamit ndax dañuy dimbalanteeg ñoom ñu ni tamit bu amee xam-xam ba mu gën a doy bu ñu amee xam-xam ba mu gën a doy bu ñu amee dogu ba mu gën a doy bu ñu amee dogu ba mu gën a doy gisin ku dimbalanteeg ñoom gisuñu ku dimbalante ñoom. kon xam-xam boobu du am du feeñal njëriñ. kon leen bàyyi nañ leen may loo xam ne seen xam-xam dana ci feeñ. nañ leen may loo xam ne seen xam-xam dana ci feeñ. mooy topp seen i ndigal. mooy topp seen i ndigal. wax ne nañ ko def nañ ko def. li ñuy wax ne nañ ko def nañu ko def. li wax ne nañ ko wattu nañ ko wattu. li ñuy wax ne nañ ko wattu nañ ko wattu. bu boobaa topp seen ndigal. bu boobaa topp seen ndigal. topp yàlla rek la. topp yàlla rek la. ndax yàlla moo santaane. ndax yàlla moo santaane. na ñi nga xam ne ñoo méngoo seen i mbir. na ñi nga xam ne ñoo méngoo seen i mbir. topp leen leen. topp leen leen. bëri nañ lool nag. bëri nañ lool nag. état bi ci la bokk. état bi ci la bokk. ñii dimbalanteeg état bi ci lañ bokk. ñii dimbalanteeg état bi ci lañ bokk. docteur yi ci lañ bokk. docteur yi ci lañ bokk. docteur yi ci lañ bokk. médecin ci lañ bokk. médecin yi ci lañ bokk. infirmier yi ci lañ bokk. infirmier yi ci lañ bokk. ndax ñoom ñëpp itam. ndax ñoom ñëpp itam. ndigal yi ñu leen jox. ndigal li ñu leen jox. ndigal yoo xam ne. ndigal yoo xam ne. ci kaw xam-xam lañ ko tabax. ci kaw xam-xam lañu ko tabax. tabaxuñ ko ci seen bànneexi bakkan. tabaxuñu ko ci seen bànneexi bakkan. ndax lan. ndax lan. ndax ànd ak seen population. ndax ànd ak seen population. ñu ànd xeex. ñu ànd ak xeex. lii nga xam ne. lii nga xam ne. lëmbe na àddina bi yëpp. lëmbe na àddina bi yëpp. buñ toppee seen ndigal. buñ toppee seen i ndigal. yàlla dinañu dimbale. yàlla danañu dimbale. ndax yàlla digal nañu. ndax yàlla digal nañu. nañ topp suñuy kilifa. nañ topp suñuy kilifa. buñ ko defee. buñ ko defee. yàlla dinañu won li tax. yàlla dinañu won li tax. mu digal ñu ñu topp leen. mu digal ñu ñu topp leen. te mooy àgg ci liñ bëgg ci jàmm. mooy àgg ci liñ bëgg ci jàmm. yal na yàlla dimbale leen ci loolu. yal na yàlla dimbale leen ci loolu yaara bi. dimbale ñu ñëpp itam ci loolu. dimbale ñu ñun ñëpp itam ci loolu. ci bés yi di ñëw. ci bés yi di ñëw. bés yi ay gan yu bëree bëri. bés di bés yi ay gan yu bëree bëri. Euh, moo tax nit ku nekk war naa wattandiku. moo tax nit ku nekk. war naa wattandiku. war naa seet boppam. war naa seet boppam. lan la war a def. lan la war a def. ngir dimbale état ngir dimbale état am. mu am ndam. mu am ndam. ci li nga xam ne mu ngi koy xeex. ci li nga xam ne mu ngi koy xeex. bokk na itam ci ndimbalante boobu. bokk na itam ci dimbalante boobu. autorité yii gouvernement bi yónni ñuy ga ñuy garder di ñu sàmm. autorité yii gouvernement bi yónni. ñuy ñëw di ñu garder di ñu sàmm. alkaati yeeg. ak ñeneen ñi dul ñoom. ak ñeneen ñi dul ñoom. ñëpp ñu ngi fi. ñëpp ñu ngi fii ci dëkk bi. te ñun rek a tax ñu nekk fi. te ñun rek ñoo tax ñu nekk fii. kon nag war nañoo xam. kon war nañoo xam bu baax. seen daraja mooy lan. seen daraja mooy lan. ñu jox leen ko. ñu jox leen ko. déglu leen. déglu leen. bu ñu la waxee jaaral fii jaaral fii. buñ la waxee jaaral fii. jaaral fañ la wax. lañ la wax dañ koo xam. lan la wax dañ koo xam. buñ la wax bul def bul def lii bul def lii. buñ la waxee bul def lii bul def loolu. ndax lañ lay wax dañ koo xam. ndax lañ lay wax dañ koy xam. bu fi nekk di gis sa bopp di gis sa bakkan. bu fi nekk di gis sa bopp di gis sa bakkan di xëccoog ñoom. ndax ñoom ay ndigal. ndax ñoom ay ndigal. rek la ñuy exécuté. rek la ñuy exécuté. ndigal yooyu nag. ndigal yooyu nag. suñu intérêt rek moo ci nekk. suñu intérêt rek moo ci nekk. kon nag. kon nag. suñu alkaati yi ñuy gis. suñu alkaati yii ngay gis. nañ leen jox seen cër. nañ leen jox seen cër. nañ nangu nañ nangu li ñuy sant. nañ nangu li ñuy sant. ndax suñu bopp rek lañuy defar defal bu boobaa. ndax suñu bopp rek la ñuy bu boobaa. waaye di bippanteeg ñoom di xëccanteeg ñoom. waaye di bippanteeg ñoom di xëccooxanteeg ñoom. te bu leen neexee ñu sànni la foo xam ne doo fekkee gàmmu gi. te bu leen neexee ñu sànni la foo xam ne. yow doo fekkee gàmmu gi. loolu yëpp wattandiku ko. loolu ëttandiku ko wattandiku ko wattandiku ko bañ koo def bañ koo def moo gën def loo xam ne moo gën def loo xam ne daf lay xañ li nga bëgg daf lay xañ li nga bëgg yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu yàlla ñu yàlla ci loolu yaa rabbi na yàlla taxawu suñuy kilifa yal na yàlla taxawu suñuy kilifa yaa rabbi topp sa kilifa nag topp sa kilifa état topp sa kilifa topp sa kilifa état loolu du wax ne moom laa faral comme nit loolu. du wax ne. du wax ne. damaa farak moom. damaa farak moom. déedéet damaa farak suma état rek la. déedéet damaa farak sama état rek la. damaa déglu samay samay autorité samay autorité liñ may wax rek la. damaa déglu samay autorité liñ may wax rek la. far farloo nag loolu beneen affaire la. far farloo nag loolu beneen affaire la. waaye nekkut fii. waaye nekkut fii. kon ñu ngi ñaan yàlla. kon ñu ngi ñaan yàlla. yàlla gën a ee suñuy xel. yàlla gën a. ee suñuy xel. ee suñuy xel. gën a ee suñuy gën a yàq yàqali suñu xam-xam dana yàqali suñuy xam-xam bañ xam ñi nga xam ne moom lañu war a jëflante bañu xam li nga ñi nga xam ne ñoom lañu war a jëflanteel ak suñuy gan ak suñuy gan ak suñuy autorité ak suñuy autorité ak suñu digganteeg suñu bopp ak suñu digganteeg suñu bopp ndax lan ndax lan Sénégal fan yii Sénégal fan yii. dëgg-dëgg di nga xam ne Sénégal la boo xam ne. dëgg-dëgg di nga xam ne Sénégal la boo xam ne. nangul na yónent. nangul na yónent. sallallahu alayhi wa sallam. société yi fi nekk yëpp. ndax société yi fi nekk yëpp. yëpp yëpp ci Sénégal. yëpp yëpp ci Sénégal. ñëw nañ Mérina. ñëw nañ Mérina. wax wax nañu ànd ñu ñu ñu bokk ak ñun bés bi. wax nañu bokk seen ñun bés bi. indi seen i seen i. seen participation. ak di seen participation. ci bés bi ay ndox ay basang ay naanuwaay. ay ndox ay basang ay naanuwaay. yooyu yëpp wane na ne. yooyu yëpp wane na ne. ñun ñëpp ñoo bokk li nga xam ne moom lañ bëgg. ñun ñëpp ñoo bokk li nga xam ne mooy ndimbalu. yàlla dimbale na Sénégal. yàlla dimbale na Sénégal. xam na daraja yonent bi. xam na daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci barke suñuy maam ak suñuy baay ndax ñoo ñu ko jàngal. ci barke suñuy maam ak suñuy baay. ndax ñoo ñu ko jàngal. ci gannaaw ndigalu yàlla. ci gannaaw ndigalu yàlla. ñëpp nangu nañ ko. ñëpp nangu nañ ko. bés bi ñëpp ngi yëngatu ngir yonent. bés bii ñëpp a ngi yëngatu ngir yonent sallallahu alayhi wa sallam. jàngalekat yaa ngi jàngale. jàngalekat yaa ngi jàngale. imaam bi mu tëjee xutbaam imaam bi mu tëjee xutbaam mu ne allahumma farrij an ummati sayyidina muhammad yow yàlla ne yow yàlla yàlla nga oyofalal yàlla nga oyofalal xeetu yonent yàlla muhammad xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan mënta paase foofu ñaan mënta paase foofu xam ngeen yàlla ñu yàlla oyofalal yàlla ñu yàlla oyofalal yaa rabbi yàlla ñu yàlla yombalal jafe-jafe yi yàlla ñu yàlla yombalal jafe-jafe yi yaa rabbi yàlla ñu yàlla ubbil ay bunt yal nañu yàlla ubbil ay bunt buntu jàmm buntu jàmm buntu wërsëg buntu wërsëg buntu xam buntu xam boo xamee nga xam lu xam di jëriñ boo xamee nga xam lu xam di jëriñ mooy jëfee ko rek mooy jëfee ko rek. boo ko jëfee doo jotee kenn dara. boo ko jëfee doo jotee kenn dara. doo jotee alkaati bi. doo jotee alkaati bi. doo jotee kenn. doo jotee kenn. waaye xam ba pare sànni fële. waaye xam ba pare sànni fële. naan man diw laa man diw laa. naan man diw laa man diw laa. dañ lay yóbbu ca gannaaw foo xam ne doo fekkee gàmmu. dañ lay yóbbu ca gannaaw foo xam ne yow doo fekkee gàmmu. loolu am na leneen lu ko gën. loolu xam nañ xam ngeen ne am na leneen lu ko gën. Mm-hmm. wax yal na yàlla may mbir mi jàmm. sëriñ bi nag ñu ñaan yàlla bu baax yal yàlla may mbir jàmm yaara bi. yal na ko sàmm yaara bi. lépp lu ragal yàlla bu ñu ko fi yàlla won. lépp yaara bi. lépp lu bëgg di ko sàkku. lépp lu bëgg di ko sàkku. ngir jullit ñëpp. ngir jullit ñëpp. yàlla ñu ci yàlla dimbale. yàlla ñu ci yàlla dimbale yaa rabi. yàlla yàlla taxawu leen. yàlla yàlla taxawu ñu yaa rabi. yàlla yàlla taxawu suñu imaam yi. yàlla yàlla taxawu suñu imaam yi yaa rabi. suñu borom xam-xam yi. suñu borom xam-xam yi. ñu baax ñi fi nekk ñëpp. ñu baax ñi fi nekk ñëpp. te di ko def di ko wane. te di ko def di ko wane. emaloo ko seen emaloo ko seen bopp. emale xam ko ci seen bopp. <coughs> man baax naa rek doy na. man baax naa rek doy na. ah ah loolu du mbaax. ah ah loolu du mbaax de برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فايد تيجان جوخ نيو